matériel militaire la bi nga xam moo bàyyi ko ca Darfour armée sénégalaise yi daal di am lu tolloog juróom fukki daamar yoo xam ne dañ ko tëggaat euh, yooyu la daamar jot dañ ko réceptionné ci yoxoy jooñ dénk wàllum euh, forces armées du merci du Kaba ci teewaayu général Biram Diop ak chef d'état-major des armées tënk la ngi nii daamar yi nga xam ne dañ koo gën a beesalaat dañ koo jëlee fële ca Darfour ginnaaw ba mu fa nekkee ci diiru fukki at ak ñaar. ministre des forces armées ak chef d'état major général des armées ñëwoon fukki oto ñaar fukki yoo nga xam ne pour ay transport personnel la ambulance yoo xam ne dañ leen transformé mu nekk ay code vert parce que koy soxla léeg-léeg ñaar fukki camion Mercedes 10 17 yoo nga xam ni mën na transporter personnel suñu bëggee tamit mën nañu génne banquette bi mu transporter ay bagages juróomi camion daaf yoo nga xam ne moom vraiment dafa ñu ci banquette dañ ko bëgg a euh, transport du matériel ba tey gis nañ ne li nga xam ne rek euh, mooy euh, seen indi fii dañ koo gën a yeesalaat waaye bu sukkandikoo ci nga xam ne mooy directeur du matériel des armes moom mi woo soldat yi ngir ñu gën koo saytu. ni nekk nga xam ni li mu war a def mécanicien bi xam nga xam yaakaar li mu war a def matériel bi dina fi programme boo xam ne dañ gën a tabax ay station fu nga xam ne tamit euh, ci yenn ci ay caserne ngir daamari nguur mën koo taxaw ñaari téeméeri maanaam su ma ko dee xayma su ma ko dee xayma montant boobu li ma mën a may mooy fukki kameenet ak benn ñu des wala juróom-ñaari camion ñi ko liggéey ñu ngi nii seen ginnaaw mais suñu amee tey jii sincèrement ku ñuy sant di ko gë di leen ak ku ñuy gërëm ñii ki xam nag mooy joon dénkum wàllum euh, forces armées di Sidi Kaba moom euh, jot naa bi bii matériel matériels waaye rik waaye di woo ñi nga xam ne ñoo ko yell ñu aar ko tey Mohamed Sidiki Kaba di gis ne daal euh, lii kat jëf ju rafet la waaye tam rik waaye di euh, sàkku ñi nga xam ne ñoo di euh, soldat si ñu sàmm koy seen téeméer yoxo ndax gise tamit naam sax ñi ngi jëm ceek yeesal ci matériel bi nga xam ne moo fi nekk dañuy déglu waa maître Sidiki Kaba ci micro Ousmane Gueye. waaw li ma bëgg wax rek lenn la ne ginnaaw ba ma leen jaajëfale ndax it euh, gis na wàllu matériel yi ñu gën ko beesal loolu am na solo ndax it réalisation ci matériel yi nga xam ne wala jumtukaay yu bees yi loole kat am na solo ndax it day tax su nga xam ne ñoo di ay troupe seen xel mën di dal officier yéen ñi nga xam ñooy sous-officier nekk militaire militaire du wala sax ñi nga xam ñoo bokk ci benn corps ak direction matériel bi yéen ñii lay waxal ndax it dama leen di féliciter euh, bu baax a baax wane ngeen ne an ngeen xarañteef ak seen compétence wane ngeen la ngeen mëne nekkat mën leen def confiance bu baax a baax ci jumtukaay yi nga xam ne kat moom leen yóbbante fii waaye tamit salaat ko tëggaat ko ngir ñu mën ko liggéeyee te itam loolu day waaye ne mënoonoo gëm suñu bopp gëm leen bu baax a baax te yaakaar nañ leen ci te fexe rek ba li nga xam ne mooy matériel bii katt mu bañ ndax saay rikkuwaay war leen ko yor rikkuwaay fexe leen ba taxaw am leen fit am leen ah, bu baax a baax wàllum ngëm-ngëm ne daanu leen gunge matériel des armes ak lu ñu mënti wax nekk na ay acteurs yu am ma am solo ci nga xam mooy wàllum logistique li nga xam ne moo di ay daamar waaye tamit lépp lu nga xam ne xeetu col la te fexe ñu gën koo yeesalaat ndax ñu ngi jëm ci yeesal yeesal nga xam ne programme njiiti réew mi la te gëm na ko naam am na ay dàll wàllum sécurité ak i combinaison gis nañ ne kat fexe ngeen ba def ci seen kéemtalaay kàttan waaye tamit gëm naa ni daal euh, daal leen ci gën a gunge wane ne rek kat yéen ngeen ak euh, li nga xam ni mooy gëm-gëm fexe ba lépp daal mu mat. le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 ñaari junni ak juróomi téeméer ak fanweer ak ñett fekk dañ wax euh, ci li nga xam rek moo ñel wàllu dem dikk bi euh, ñi nga xam ñooy transport ci aftu ñoom ne bëggoon waa yokk rek li nga xam ne as lëf ci njëgu dem beeg dikk bi mukk du ci dal ki nga xam ne mooy jëwñ dénk wàllu dem dikk bi di Omar Youm nee na mukk loolee moom duñ ko seetaan ndax aslan di ko attan te jamono ji euh, waxu yokk moom kenn du ko fii nga nee na itam rek di sàkku ci nga xam ñooy takk jëriñ ñu seen liggéey waaye tamit ñu respecté li nga xam ne mooy charte yi dënk la ngi nii jëw nga xam ne moom lañ dénk wàllum dem mbék dikk bi ah, gis na ne daal moom kat la ñuy laam-laamee ci naan dana yokk aslëf ci transport urbain te neen loolu amul ba tax na ma ngay artu ñi nga xam ñoo nekk ci secteur boobu ne daal loole ko ko def daal di nga xotti charte bi nee na amul benn yokk boo xam ne daal nemmeeku nañ ko ci wala sax lu ñu waxtaanee waaye amul lenn loo xam ne daal jël nañ ko dogal fii ci Ndakaaru jëriñ ji moo ni waxee ci benn bataaxal ne document bi nga xam ne moo nekk ci internet te ñuy gis ne daal yokk nañ ticket transport yi ci minibus yi association financement transport urbain ne loolu daal amul. nee na njëgu transport public yi routier yi ci nit ñi nga xam ne daal ñoo ko doon wax ne loolee décret kat moo koy daal di tabb ci 2009 20 ci ñaar fukki fan ak ñaar ci weerum janvier ci atum 2009 le ministre bi fàttali. nee na yokk boo xam ne nemmeeku nañ ko loolukat kat day mel na ngay xotti charte waaye itam jàdd yoon te loolu daal seen loxokat du ca génn bépp augmentation wala bépp yokk boo xam ne yëg nañ ko te gis na ne kat loolu jaaru yoon ñoom daañ ko digaale ak ñoom tey woo opérateurs yi ñu waa ànd ak seen xel waaye itam ànd ak daal yërëm askan wi gis ne kat loolee moom nekk loo xam ne daal nekk na loo xam ne kat jot na dañ wax ah, ci mi coowal suuf bi nga xam ne moo lëmbi ci diwaan Wakaam waaye tamit am collectif boo xam ne teg nañ ko ca ña fa dëkk ñoom ah, gis ngeen daal ci wàllum te juridique ci collectif bi nga xam teg nañ ko waaye tam xeex gis ngeen daal caxat-caxatee gu ñuy caxat-caxatee seen suuf gis ngeen tamit war nañoo tàmbali benn action judiciaire te ah, fexe rek ba ñu ti ba ñu indi ay leeral ci titre foncier 50 07 tënk leen moom di càmm ak Ousmane Gueye lu bees ci suufub wakam bi ak collective bi ëmb ay dignitaire doon jàkkarloo ak taskatu xibaar yi. tey li ñu fi indi mooy fexe ba euh, waxtaan ci li nga xamante ne mooy euh, moral ak euh, personnalité morale bu collectivité de wakam. beneen aspect bi mooy communiquer ci nga xamee ne ñaawteef fi dox yi am temps yi ci suñu suuf 5007 te impacté ko bu baax ñu yaakaar ne war nañ ko partager ak ñu ngi ko bokkal. titre foncier 50 07 bii nag ci ay nar yoo xam ni dañu ko organiser le wéeru ñoo ko amal di ay prédateur foncier bu ñu sukkandiku ci ki yor kàdduk bés bi. maanaam fenn wu ñu defar xam nga loolu dafa nekk mbir bu doy waar jéggi na doye jéggi doye boo xamante ne dem na ba mu nar ñu ñàkkaloo suñu suuf waaye yàlla def na ba ñu ngi ci yoon pour am luñ ci dem. bokk na ci yooyu benn boo xamee ne 8736 mètres carrés la yu ñu jox ku ñuy wax gasama ci ay ay ay ay wax yoo xamee ne taxawul fenn. ginnaaw bi ñu dajee nag ci bilépp collectif ñoom góor yàlla yi nag fas yéene tax ngir rek arrêté li nga xam ni moom mooy coowuk suuf si ci loolee nag ñu fas yéene see taxaw teem jaaree ko nag ci wàllum yoon. am na ci ñett wala ñeent ci ñoom ñu ngi fii ci biir salle bi. jël nañu décision ne dañu ànd yoon comme mbooloo lañu te dañu nekkoon ci yoon loolu rek moo ko xaw a tardé ñu war a waxtaan suñu biir seet lan mooy taxawaay bi gën a jaadu pour ñu ànd doxal ko mu dem parce que mbooloo lañu dañu war a wuyoo taxawaayu mbooloo. su mbir mi nag yegsee fii mu yegsi tey jii nag bokk na si ñàkku déggoo bi ñu nemmeeku ci biir askanub lébu fii ci Wakaam ndax boo fi ñëwee nag ñëpp waxuñu ci benn kàddu. masuñu ñàkk pare. waaye nag dafa am lu ñu jànkonteel dafa am jombe bu garaaw bu doy boo xamee ne jamono ji ñu toll nii loolu moo nekk suñu pre préoccupation. bu fekkee dafa am benn parti boo xamee ne surtout benn nit jog ne man maa moom sama maama moom wax ko ci ay vidéo wax ko feneen ak feneen mais kooku koy waxtaanal foofu mu nangoo toog ñeneen toog ña mu àndal waxtaan mën a am. agir nag. lépp teg ko ci wàllum ah, jàmm ak jàmmal ngir nag mën na sauver li des ci suufuk Wakam bi mu mel ni lii di prédation foncière bi ñu fi nemmeeku dafay wane rek ñàkku déggoo bi dox ci diggante ñoom dignitaire lébu yi bi lépp collectif di wax ni sax moom noppi na ngir ay waxtaan waaye nag du ci jamono ji keneen desandi mbokk yi ki nga xam ne mooy am Tidiane Ndiaye moom nee daal li nga xam rek euh, mooy euh, seen suuf ni koy caxat-caxatee yéeme na ci yenn ci ay parcelles lu ëpp rek 753 euh, parcelles yoo xam ne ñu ko autorisé daanaka am loo xam ne ci loolu junni fexe nañ ba mettre ko en valeur ne itam am na loo xam ne daal neexu leen waaye tamit doxalin gi moom tey na xel moom dañuy déglu am Tidiane njaay ci micro Ousmane Gueye. suuf soosu dañ ko jëlee sur la base de réquisition. réquisition mooy li ñuy wax réquisition à des fins d'immatriculation waaye ba ñuy def réquisition à des fins d'immatriculation mais demuñu defi ko euh, Njongoloor demuñu defi ko euh, Gànjaay ñu defi ko feneen fii la ñu ñëw def réquisition yi waxtaan toog ak suñuy mbokk yi waaw dañu am yaakaar ni bu réquisition demee ñu def ko ba pare ba utiliser suuf si yaakaar ne aéroport bu war na fi jóge ak yeneen ak yeneen li gën a jaadu ñu yaakaar ne war nañu ña fa dëkk ña ko moom même bu ñu toogee ne moomatuñu ko ndax titre foncier lañ ci def mais ñoom dafa jaadu ñu wax ak ñoom am lu ñu leen ci njukkal parce que dañu am droit comme ñëpp en tant que riverain et premier occupant loolu benn la am na beneen bu nga xamante ne aussi mooy dañuy ñuy wax indivision maanaam li ñu bokk ànd ci ñun ñëpp bokk ko ay ñu jóg toujours ci li ma la wax rek fen wu ñu defar utey kayit defar loo xamee ne taxawul fen fabriquer ay papier ne assemblée bu amul ñu def dem ba dindi lu ñuy wax indivision indivision rek boo ko déggee mooy dañu ko bàyyi ci biir titre foncier pour mu ñoŋal tiit foncier ba fu mu nekk rek ña ko bokk ñu def dara tànk juboowu ñu déggoo ñu ba tey mbokk dañ waax uh, ci li nga xam rek uh, moo ñeel wàllum uh, synthèse mooy liggéeykat ya nekk ci Grand Mall de Dakar ndax foofee kat gis nañ ne daal coow ma nga fay judd ba tey ginnaaw ba ñu dàqee ay délégué ak yéen ci ay liggéeykat la leen di reproché mooy dañ faa def assemblée générale bu wérut waaye tamit di bëgga liggéey di utiliser WhatsApp ak den dajaloon nañ neexee ñoom ne duñ ko seetaan waaye tamit daan ko defanteek ba mu saf sàpp tënk laa ngi nii intersyndical bi nga xam ne moo yii union nationale syndicat autonome Sénégal di UNSAS ak CNTS ñoom section bi nga xam moo ne ca Grand Moulin di ñaawlu doxalin nga xam ne mooy seen i njiit responsable yi di ñaawlu rek doxalin gi naam bu seen directeur général ak ki nga xam ne mooy wàllum ressources humaines ndax ne ñoom ñaar daal dañoo dàq rek euh, li nga xam ne moom la yoon tëral dàq na li nga xam ne rek mooy ay délégué di tolloog juróom-ñett ci juróomi fan ci weerum juin. leneen daal dool doyut waaye gis nañ ne ah, ñu ngi koy ñaalu naam waaye ci jamono ji nga xam ne dialogue social bi ak concertation yi waxtaan mi ngi am te nee na loolu nekk na kat réalité maanaam dëgg-dëgg ci Sénégal waaye tamit ci jamono ji nga xam ne jot nañu siife pacte national de stabilité sociale d'émergence waaye tam nee na daal euh, méthode yi nga xam ne utiliser ngir yor euh, personnel bi loolu ku ko wax rek loxo dar gémmiñ nee day yàq ca biir biir waaye tam di ah, xoli góom bi nga xam ne daal bay tax na rek ah, ma ngay wëy di tuuru entreprise bi nee na expérience su xeex ci wàllum syndical am na ko waaye tamit aadama ja nee na lii nag moom euh, lu ëpp tuuru ba tey nee na di ko ñaalu ndax it euh, sanction yi nga xam ne moom lañ teg liggéeykat yi métti na ci motif yi nga xam ne daal ne liggéeykat yi amuñu droit organiser wala waxtaan ci whatsapp wala sax am assemblée générale ca biir usine ba. Lamine Fall secrétaire général bu adjoint CNTS nee na xeex bi dafa door ndax it euh, gis nañ ne daal intersyndical bi dina am ak benn sit-in biir entreprise bi waaye tamit daal déposé après préavis de grève bu fekkee ne lii nag moom dakaluñ ko.